austérité en conseil des ministres le premier ministre pour un polissage de la masse salariale euh, premier ministre bi àdduna ci li nga xam ne moom mooy euh, dépense yi nga xam ne moom la état bi di amal gis nañ ni dafa bëri daal ba jéggi dayoo léegi naan la ñuy xool nañ koy wàññee nañ koy yaxanalee ndax saxanal nag dana tax koom gi gën a gën a ñoŋ waaw suppression du budget 2024 de tout programme jugé non non essentiel li nga xam ne daal am na ci ay programme yoo xam ne bokk na ci budget 2024 ñu ngi koy xool nan lañ koy dindee récupération des biens soustraits du patrimoine bâti de l'État et du parc automobile am na ñoo xam ne nag seen dépense fan lay ëppee doole ci oto yi nga xam ne dañ koy jël daal di ko di ko di ko mm-hmm. di ko di ko di ko dajale ci ay institutions ak yooyu mm-hmm. ak ci yenn ministères yi rationalisation des subvention et des mission à l'étranger des gens des agent de l'État yi nga xam ne war nañ di dem mission wak ñoom seen danañ ko wàññi war a dem mission ànd ak gàngoor logement fonctionnaire yi sugu war a dem fenn ànd ak waa CRAB yëpp yooyu noonu dañ koy bàyyi centralisation des achats de matériels et mobilier de l' administration mu ngi nii démission collective chez Khalifa Sall xalifa Khalifa Sall ñu ngi koy bàyyi de di dem. waaw euh, nu taxaw. taxaw ña ngay dem dañoo mit nañu demee sax nag moom taa ñaaw. le coordinateur national des cadres et vingt 24 autres qui taxawu Sénégal. coordinateur national bi dem na ak yeneen vingt 24 topp nañ ci dem. Mhm. Madde Codé Ndiaye nous avons refusé tout rapprochement avec Benno. Mm. est-ce que kon xalifa day waaj a ànd ak Benno. ah l'ancien maire de Dakar serait en négociation avec le PS Amady ah, Codou moom ancien maire. Omar Ben yàlla tere yow duma la ignorer. moom moom day day kii. Mhm. Amar Ben. dafa bëgg ànd ak PS ñoom Khalifa ñu dem. bi ci topp bi tey bi ci topp vingt quatre heures. Mhm. vingt quatre heures yéen kaay ñëw ñun ci Touba le chantier spécial de Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. am na fa yéene de. président de la république fële Touba le chef de l'État a appelé au gouvernement que Touba devra bénéficier d'un programme spécial d'aménagement et de développement urbain intégral des volets importants relatifs à l'amélioration des réseaux d'assainissement et des systèmes d'approvisionnement en eau potable ci wàllu ko assainissement ak eau potable président àdduwaat na ci. ak chantier boobu daal spécial la koy jagleel. waaw waaw spécialement mhm. pour pour Touba. Touba daal comme ni niñ ko xamee loolu doom bu góor la fa. Mhm. waaw mu ngi nii euh, biir taxawu 26 cadres de taxawu Sénégal lâche Khalifa. ah ñoom ku fa des ko ku fa des. Baart <laughs> baax na recrudescence des actes de délinquance Ousmane Sonko va corser le dispositif sécuritaire dana ko tegal ba mu teg. ñu dem mm-hmm. direct news yi ñëw ñun ci alerte sur le gaz Diomaye espère un repreneur pour le gisement Yaakaar Teranga mm-hmm. am na yeneen ñu ngi ko yaakaaree de pour Yaakaar Teranga bi li nga xam ne war nañ fa exploiter gaz bi ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a lëkkalool pour ñu mën ñu ko gérer la quête d'un repreneur pour Yaakaar Teranga a solon selon le très réseauté African Intelligence au cœur des discussions entre le président et le ministre malaisien des Affaires étrangères Mohamed bin Hadji Hassan lors de sa visite à Dakar en mars, en mai dernier pour compenser le départ de BP BP dafa dem ñu bëgg ko remplacer keneen waxtaan nañ ci nag ak kii di premier ak kii di euh, ministre malaisien des Affaires étrangères pour compenser le départ de BP pour ut ku ñu ko remplacer. Mm-hmm. le gouvernement a clairement manifesté son intérêt pour Petronas. la compagnie pétrolière malaisienne très active sur le continent moom am na fi ay wàll am na ñoo xam ne moom moo leen géré fii ci continent Afrique moom la ñuy waaj a négocier pour dénk ko lii di yaakaar teraanga gisement bi en réponse les autorités malaisiennes ont rapidement mis en contact les équipes de Petronas avec celles de notre pays pour explorer les possibilités de collaboration ñoom jël nañ seen équipe bi équipe Petronas bi xool nan la ñuy jéem a lëkkaloo lëkkaloo mhm. ak waa Sénégal les défis d'une collaboration avec Énergie Cosmos Énergie Cosmos annonce la réduction de sa participation Cosmos moom mën nañ tamit lë lënkaloo ak moom mm-hmm. moom nag nee na mën na wàññi li nga xam ni moom la yi lëkkaloowee les retards accumulés dans la production des champs gaziers notamment ceux de Sangomar et GTA ainsi que l'incertitude quant à l'avenir du projet suscite des inquiétudes, les problèmes de Petronas en Afrique, vers une nouvelle donne dans l'énergie, alors que le gouvernement poursuit ses négociations avec Petronas, l'avenir de Yakaar Teranga reste incertain. Yakaar Teranga avenir am kiiwul de leerul de pétrole beeg gaz bi. d'accord bu ci toog. enquête yéen a kaay ñoom ñun ci Aminata deux destins une influence. te doo mu bàyyi. baal ma. damay génn. déedéet defal. boo génnee foo jëm. moom jaaxal. deux destins une influence. Aminata Mbengue Ndiaye gardienne de temps socialiste un parcours marqué par la fidélité et l'ancrage local Aminata Touré la technocrate rebelle toujours prête à rompre avec l'ordre établi pour défendre ses convictions. Mm-hmm. moom gëm-gëmam rek lay topp. kële nag moom ab koo xam ne mu ngi mu ngi mu ngi gunge Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi gunge parti bi xool nañ la ñuy defaree digganteeg ñoom seen nekk fa ab sage kii nag moom elle est tout le temps dominée par ses convictions gëm-gëm lay demee waaw Mimi mm-hmm. deux icônes qui défient les conventions dans un paysage politique dominé par les hommes ñaari jigéen yoo xam ne jigéen yu mën góor lañ ñu dem critique yéen a kaay ñëw ñun ci l' assemblée nationale à l'agone assemblée nationale mu ngi ci acte de décès de la quatorzième législature ñu ngi koy waaj a utal acte de décès pour suulu ji ko ñu ne ici repose à moins d'une quinzaine de jours de sa dissolution fukki fan ak juróom moom moo des pour ñu mën ko war a mën a tas l'Assemblée nationale pas pour ñu tas ko pour ñu war koo mën a tas l'Assemblée nationale traverse une phase cruciale avec l'offensive du pouvoir exécutif portant dissolution d'institutions clés de l'architecture étatique sous le prétexte politique de la rationalisation des ressources publiques le président de la République actionne ses prérogatives et impose sa volonté aux députés une procédure qui acte la volonté du palais et par ricochet la belle mort d'une législature sabotée assemblée nationale bi nag lu toll ci fukki fan juróom yoo xam ne war nañ ko mën a tas nee nañ mu ngi ci sukuraat ndax lan ndax ñaari institution yi nga xam ne président de la république bëgg na ko fay dindi muy HCCT ak conseil économique social social et environnemental nee nañ nag loolu président lan moo tax mu am yéene dindi ko pour wàññi li nga xam ne moom la état bi di jëfandikoo ci ab koppar la rationalité des ressources publiques le président la actionne ses prérogatives et impose sa volonté aux députés wax na leen nag lii la nam député yi bu ñu bañee fa lay jaaree tas assemblée nationale ndax assemblée bii nag tasaabul na ndax lan une législature sabotée la belle mort d'une législature sabotée. une niche de 77 milliards moom moo fa doon nekk ci ñaari institutions yi ñu bëgg a tas. laas yéene kaay ñoom ñun ci meurtre de Aziz Dabala Nabou Leye et compagnie écroué pour plusieurs chefs d'accusation lañ leen taqal bëri na de ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ni laale nañ ci deewu Aziz Dabala bi ak Wali modèle économique intégration du numérique et de l'IA professionnalisation des formations contrôle qualité la réforme de l'enseignement supérieur bëgg nañ joyante enseignement supérieur bi de on est à l'ère de la euh, digitalisation intelligence artificielle booy xool sax euh, à titre informatique intelligence artificielle gars yi du jour au jour la ñuy jéem a xool nan la ñuy concurrencer donc on est dans l'obligation daal wax dëgg yàlla xool nan la ñuy mën a daboo yenn yi ñu leen le mandat yéene kaay ñëw ñun ci vague de démission dans le parti Khalifa Sall taxaw Sénégal se vide de ses cadres état des routes nationales reconstruire la RN5 en Casamance bëgg nañ tabaxaat kii bi defaraat kii. route nationale numéro le regard yéeni kaay ñëw ñun ci au cœur Moustapha bat le record détournement des deniers publics l'ancien ministre des finances et du budget risque la prison aïe au cœur Moustapha bat le record ancien ministre bi nee nañ li mu jël li mu luubal mu ëpp de mm-hmm. autoroute de l'eau le lancement prévu en octobre defar ay autoroute de l'eau maanaam ay yoon yi nga xam ni ndox yi dañ fay jaar di fa jaar di xelli lu bëri commissaire Keita convoqué à la DIC déglu nañ ko. Ah, ñu dem le soleil yéene kaay ñoo ñun ci. aphrodisiaque pour femmes à base de produits chimiques de drogue le tabac bat un danger intime un danger intime ndax ay partie intime lay kii. Mm-hmm. waxtaanee woon nañu ko fi waxtaanee woon nañu ko fi kay. Mm-hmm. yàlla dolli sutura. ñi rek. les échos. les échos yéen a kaay ñoo ngi ci affaire du double meurtre à Pikine les lourdes charges retenues contre Naboulaye et compagnie daani métti na diis na. ils sont poursuivis pour assassinat acte de barbarie et complicité de ces faits. Mhm. lañu leen di toppee assassinat ci la acte de barbarie maanaam ay actes yi nga xam ne daal niitewul mhm. et complicité de ces ak ñoo xam ne dañoo bokk ci dil bi les avocats plaident en vain le contrôle judiciaire pour Nabou Leye plaidé nañu waaye mujjul fenn su ma nekkoon avocat mhm. koy jël nga koy plaidé alors la conscience ne ment mais nag parfois bon doo comprendre parfois da tu te poses la question da naan avocat yi la ñuy kii mais tamit sa liggéey xam naa daal liggéey. ah en fait sama moo tax am na métier yoo xam ne daal may plaider yenn cas yi du ma ko plaider. man de am na métier yoo xam ne daal du ma ko jàll parce que su ma ko defee su ma tëddee du ma man de am na métier yoo xam ne xam naa du ma ko def man daal xam naa yàlla ci li mën a toog nii naa ci toog rek. mën nga ko def de mais dinaa ci am benn retour boo xamante ne yéen ñi du ma si dugg. Mhm. wax ji ñu <laughs> may fay. ba dem xaaral rek yéeme na de le juge évoque des faits graves des risques de trouble à l'ordre public un risque de oh, subornation de témoins. deuxième point bi rationalisation des dépenses publiques Sonko fait des groupes sombres dans le budget de 2024 nañu wàññi li nga xam ne moom la état di jëfandikoo loolu la Ousmane Sonko kii di premier ministre xamle ak di sàkku ñu dem. Mm-hmm. l' évidence. l' évidence yéen a kaay ñëw ñun ci. commis rouge man commis rouge man. yow demal demal l' évidence. commis rouge man. bu dee man lay rouge ne léegi. mais lu la naqari fii. bu dee man lay rouge ne léegi école ubbi. <laughs> na la muñal. muy ñu ay kay yàlla ba léegi école ubbi àddina am solo àddina am solo école ubbi mhm. meurtre d'Aziz Dabala et du jeune Wali Naboulé et compagnie envoyé en prison door nañ leen mandat de dépôt dem nañ de projet d'électrification rurale avec l'entreprise espagnole a e Power EPC Sénégal SA crie au scandale et dénonce une usurpation de paternité démb wax nañ ko fi. Mm-hmm. ñu dem. bi ci topp bi tey <laughs> libération. ñëwal demal libération. tout sur le double assassinat à Pikine Technopole dans les secrets de l'enquête de la dikk La dame, Kassi, c'est témoin. J'ai entendu un cri de détresse, mais. moom nee na dégg na ay yuux waaye trois points de suspension. Mm-hmm. Aba. Ah sœur de Aziz Dabala est témoin Naboulay m'a dit que Aziz était injoignable et introuvable mm-hmm. kii nga xam ni raq la wala mag ci Aziz Dabala. Mm-hmm. moom nee nabulee daf ko noonu Aziz kenn munu koo jot téléphone. tamit kenn ba pare kenn gisu ko. était injoignable et introuvable. retrait de 5000 francs CFA du compte Wave d'Aziz Dabala et de 3000 francs du compte de Babacar Gano dans un service de Guinaw Rail. comment Mamadou Lamine Diaw Omar Gueye Fallou Diop alias Mbaye Fall et Serigne Sarr di Ndës ont été cernés. le témoignage accablant des deux gérants de multiservice enquête bi dem na ba ñi nga xam ne ñoo yor multiservice nga xam ne fa la ñu retiré woon 5000 ak 3000. Mhm. benn bi ci téléphone Aziz Dabala beneen bi ci téléphone Babacar Gano. son numéro géolocalisé sur la scène de crime Omar Gueye se défausse sur Ndës numéro moom la ñu localisé fa nga xam ne fa la meurtre bi amee. mu tay leen des mooy ki ci ki ci ki ne woon moom du ci dara def yàlla daal toppoon ci bi ñuy retraité xaalis bi rek Ses habits tachés de sang, Mamadou Lamine Diaw a quitté les lieux du crime en mettant un jàllaabe appartenant à Abdou Aziz Ba dakaa rey ba pare jël jàllaabeem lonkoo ko ndax yërëm daa taxoon deret mu am conscience tranquille ñibbi toog xam naa di nga reer tëdd nelaw yeewu. loolu moo ma jaaxal. ba dem màggal gàddu sab saag na da ngay dem màggal. parce que mënuma comprendre sugu nga rey nit après nga am conscience tranquille amoo benn remords amoo problème après yow nga am kii dem ba Touba toog est-ce que réellement ñi ay ay ay ay nit <laughs> ordinaire la ñoo fait. Ah, lii quotidien ñëw ñun ci dissolution du HCCT et du CES les motivations du chef de l'État dem mbay may wax cette proposition entre dans le cadre du raffermissement des réformes constitutionnelles de la rationalisation systématique des charges de l'État <laughs> de la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en œuvre accélérée du projet mm-hmm. li tax président de la République bëgg a tas ñaari institution yi lii la Mm-hmm. du raffermissement des réformes constitutionnelles état bi li nga xam ne moom lay yenn ci ndoddam gi àttanu ko waaye tamit projet bi ñu ngi ko gën a gaawalee parce que am na yoo xam ne bokkuloon ci projet bi dañ ko fay fekk commissaire Keita ngi ni Ami Cissé ñu dem L'indépendant yéen kaay ñëw ñun ci politique nationale de l'enseignement supérieur Diomaye demande une réflexion en profondeur nañ ci xalaat xalaat bu sori pour mën a jooyanti ko le chef de l'État a souligné l'urgence de professionnaliser les formations afin d'adapter notre système d'enseignement supérieur au monde de l'emploi nañ xool nga xam ne ku jàng di nga mën a liggéey ji waaye jàng université yi nga xam ne comme ni ko Amina waxee seen diplôme yi elles ne ils ne sont pas reconnus. da ngay jàng ba pare doo mën a jàng pour jàng rek. man formation laa bëgg a def da ngay fay sa xaalis ba pare. après nga am problème ma dama ñu naan la école bi état reconnaître ko. Mhm. man formation laa bëgg a def. formation pour man innovation bi bu ñu ko yokkee ak recherche. formation nangam ak nangam. voilà. formation nang te am na ñoo xam ne yenn formation yi ñuy def man sax defuma ko te xam naa lañ ca jàng man dàqu ñu ma. Hmm. man de science politique laay def. il demande de réfléchir sur un modèle économique pour les universités publiques et pour l'enseignement supérieur en général. Mmh. Il a insisté sur l'urgence d'élaborer un plan maîtrisé de recrutement d'enseignants dans le supérieur. nañ xool tamit nan la ñuy defee euh, pour gën a dolli jàngalekat yi au niveau de l'enseignement supérieur parce que dafa mel manqué nañ de ñu dem. L'info yéenekaay ñëw ñun ci rationalisation des ressources et dépenses comment l'État compte se serrer la ceinture premier ministre Ousmane Sonko daal nee nañu wàññi li état bi di dundee bëri na trop. Mm-hmm. d'accord bi ci topp bi tey l'observateur. l'observateur yéen a kaay ñëw ci affaire Aziz Dabala Nabou Leye s'enfonce dugg na de. Mm-hmm. Mm-hmm. dugg na de elle parlait avec les meurtriers jusqu'à quatre heures du matin. Hmm. na bu nag neexoo seetal ba léegi ah. et ba léegi moom nanguwul que ni. nanguwul te tegal nañ ko téléphone yi. Hmm. ba léegi moom mu ngi jàpp fi mu jàpp. e tegal nañ ko téléphone yi de. Hmm, je ne suis pas du genre à fuir laaj jom na moom du dawkat. tonton mes avocats vont saisir le ministre de l'intérieur c'est une violation flagrante de la loi nee li ñu def dañoo violer loi bi. Eh, bu leen violer loi bu leen. ay avocats am dinañ saisir ministre de l'intérieur wax ak moom. bu leen tooñ tontoon lat nag. <laughs> point actu ñëw ci politique publique de l'UDO déroule et surprend reddition des comptes en vue Lat Diop interdit de sortie du territoire ci àll li nga xam ne jëmale nañ ko ci ay politique publique nee nañ nag duo bi Diomaye ak Sonko ñu ngi déroulé waaye tamit ñu ngi bette de am na ñoo xam ne moom. am ne réduction des comptes léegi fii fii lan moo fi nekk réduction des comptes tamit tontoo perte. nañ laaj interdiction est que dañ ko dañ koo bëgg xool li mu luubaloon bu dee bu dee réduction bu dee lii dafa bëgg ni réduction mooy dafa luubaloon. Hmm. loolu nga koy interpréter. mais tey jii moom am na am yenn kii yoo xam te ne rapport yoo xam te ne tudd na ko mais ba tey loolu. waaw génnagul. l'Assemblée tient sa plénière aujourd'hui le fisc ne lève pas son coude sur les entreprise yi bàyyeeguñ leen di assemblée bi tey la ñuy daje le foncier au cœur de la gestion du pouvoir justice le projet de réforme. révélation yéen kaay ñëw ñun ci tentative d'usurpation de paternité sur un projet d'électrification rurale oh ñi la tamit ñaari entreprise premier satellite sénégalais Cheikh Omar Anne joué na ci kii de rôle bu majeur. Hmm. waw macha Lat Diop nee na j'ai choisi la guerre à la place du déshonneur. ah tantôt guerre baaxul. je guerre guerrons mais on ne me déshonore pas ñu dem. source à ñëw ñun ci le ministre Cheikh Tidiane Dièye écrit à la DCMP pour renoncer à son entente direct en faveur du Delta et Fiscal bind na direction bi de. entente direct boobu nag nga xam ne moo amoon. loolu Cheikh Dieng doon dénoncé nee nañ daal daf cee bëgg génn 24 heures plus tard le successeur de Cheikh Dieng sollicite à son tour une entente directe après 24 heures ki nga xam ne moo remplacé Cheikh Dieng moom tamit dafa bëggoon entente directe daaray cocc à l'ONAS daaray cocc à ku nekkoon dañoo ni daaray cocc à l'ONAS maanaam pièce théâtrale la la fa xew <laughs> comme théâtre d'accord fii ab ceeb moo leen boole boolu ceeb ba ab nit dee Sud Quotidien ñëw ñun ci suppression ou non HCCT et du CES ce jeudi l'Assemblée joue à l'arbitre mm -hmm. Assemblée nationale mooy àtte de yéenay choisir waaw la suppression des institutions n'a jamais été efficace ou impactante dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal selon un professeur agrégé en droit hmm. nee na dindi institution yi daal nekkul loo xam ne bëri na njëriñ trop trop trop trop trop ci histoire politique ak institutionnelle du Sénégal. ah mais bu dee institution yoo xamante ne mi ngi coûter état bi cher. ba pare amul njariñ askan amul njariñ bu bëri askan wi tamit. dinañ ci ni ngeen nekk. dindi ko day gën bàyyi ko fa nag. dëgg fa yàlla. ñu dem. turbine yéen a kaay ñoom ñun ci affaire du double meurtre. à Pikine Technopole Naboulé et compagnie envoyés en prison ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs association lañ leen toppee daal bokk na ci acte de barbarie viol vol aggravé sàcc gu métti complicité ruumandaat dajaloo xam nga association de malfaiteurs oh. alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays Lat Diop interpellé à AIBD Lat Diop ca aéroport lañ ko dogale ñu dem Mm-hmm. vox populi ñoo ci projet de dissolution du HCCT la jum de def HCCT et du conseil économique social et environnemental CESE de chaudes empoignades en vue à l'assemblée mm-hmm. waaw assemblée bi dina métti dañ koy tas doo ko tas da ngeen di voté du ñu voté. waaw ah, ñëw sax seetaan la fa xew tey. <laughs> mën ngeen ko am aussi en direct ci 2A TV. ginnaaw fajaru bi rek xam naa euh, direct assemblée nationale ngeen di am incha allah. ci topp. 587 clandestins interpellés du 15. ay na sax yaa ngi def lu la neex nag. 587 clandestins interpellés du 15 au 27 août. lu ah. toll ci. juróomi téeméer rek juróom ñetti fukk ak juróom-ñaar ci ñu doon dem diggante quinze ak vingt sept août nañ leen. téye nañ leen ñu dem yor-yor yéen kaay ñun ci dissolution du CESE et du HCCT l'opposition franchira-t-elle le Rubicon en rejetant le projet de loi est-ce que opposition bi dina mën a taxawaat ndëgër laayam ngir ñu bañ a tas bu dee lii dana ko nangu wala mu ñàkk nangu ndax dana ko ah bu ko rejeté tamit. ñooy choisir. député Amadou Ba l'Assemblée nationale n'a aucune compétence pour bloquer la convocation de la section de la session extraordinaire mhm. par le président de la République session ordinaire moom dina am nee na Assemblée nationale mun ñu ko bloquer député ay Daffé le président a strictement respecté l'article 63 de la Constitution nee na président respecté na article bi ba mu mat sëkk député Samba Dal si les députés de l'opposition veulent ramer à contre-courant le peuple va les dégager ñu hmm. bu ñu bëggee taxawee taxawaay antibadacier peuple bi mën na leen kii de mën na leen fa jëlee de ñu dem ñu dem jeex na hmm. voilà ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfalaat. xam naa démb nelawoo moom. démb nelaw naa. Hmm. tey nan la tey sant